Mamour Diallo rek lim la mën a jox ci ay million kenn mënula ko wax. te xoolal le mec le mec il m'a forcé mu am benn conversation moom comme si moom daf may jàppale rek nee comme si daf may jàppale est-ce que xam nga loolu. moom moom ci boppam. te moom moo tëgg lépp ah. waaw. moo tëgg lépp moom moo tëgg lépp moom moo ma wër si ba gis ma man xaw ma woon kan la mais dafa Sidi moo ko waxoon ne am naa benn cible boo xamante ne loo gars yi dafay dem di koy seek moom rek Mamour Diallo ci ñu dugg dem maître Sow yor naa benn lii nii li yoo xamante ne maître Sow moo ko bind si loxo numéro jox ma ko dinaa la ko jox maître Sow yaa maître Sow ñoom ñëpp ñu wax si après ñu ñoom ñu ne. mën ndax mën nañ am sperme ma ne leen sperme comme ça veut dire quoi yéen est-ce que ay nit ngeen et tout ça ñoom ñoom ma wax ne dama retourné waat li nga xamante ne duñ ko def say ni doom déjà loolu noonu c'est benn affaire bu grave ñoom ma den dama retourné waat pour ñu am sperme gis nga nag loolu loolu nag gis nga loolu noonu rek loolu noonu rek luñ luñ ci mën a liggéey am naa ci loolu liñ ci mën a liggéey. après ma demaat ce jour ce même jour. j'ai appelé mais une semaine après maître m'a appelé pour ma dire que le il est là ma ne ko waa ji ñëw na fi de parce que damaa duggoon cabine ak keneen mën na ko ñëw na mais def dara dafa ñibbiwaat ma sew. voilà dama. mais mu dem mais jour boobu si Mamour Diallo moo ñu jox oto ñu dem. ànd léegi nag gis nga gis nga loolu noonu ah, ci pet ci man sama diggante ak yow mhm. ay million la yoo xam ne yow sa compte lay nekk fii loo xam ne dañ koy téye parce que déjà déjà ñoom tamit dañ ma demande par force par force par parce que ñoom ñoo tax liggéeyatuñu moo tax ma ne la maa ngi sa ginnaaw au li ma lay wax ne sama papa sax xamu ko nii sama yaay kenn xamu ko si ma. déedéet xam naa. kenn xamu ko bi nga am. papa wax bi confiance bi nga am ci man cest à li nga mën a wax ak man. li nga mën a wax ak man mënoo koo wax ak kenn te dama lay wax. confiance la boo xam ne sama diggante ak yow boo xam ne lu ñuy téye la rek denc voilà. parce que nit il faut mu am ku nekk ci wetam dimbale ko comprendre nga bu baax. mais hmm. jamais dama lay dimbale jamais maa ngi ak yow ba nga dee yow waxuma la dara dama lay téye. ba ni ñuy dee. bien sûr pourquoi pas pourquoi pas yow man maa jox Cheikh Ibrahima Niass déggoo lu ma la yow loolu bul sonn. Oh, loolu boo ko tëjee instant bi loo si tëggaatoon nii mën na la jeex na. Mawlana Cheikh Ibrahima soo si tëggaatoon ma dem na loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la. ñun ñëpp aw nga problème man bu fekkee ne man man d'accord naa bu fekkee ne dañoo wax ne benn dinaa leen fa ket bu ñu waxee ne mënuñu defal compte je sais mën nañ ko def sa compte. bien sûr bien sûr dañ koy jël dama koy jël. nag day dañ koy jël léegi daal li ma lay wax daal mooy. loolu yëpp hmm? fii day sedd day nga xamoo am na loo xam ne su fekkee ne doo dof da ngay xam lu xew lépp dégg waaw mu ngi noonu te li xew lépp xam nañ ko waaw léegi nag mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi munuñ laa téye ñoom munuñ laa téye di la utiliser ci loo xam ni ay waxu neen la rek comprendre mm-hmm. ba pare nag ñëw bëgg nag yow duñ la jox sa àq sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel mi xam nañ ne yow xale nga xel mi xóotagul noonu moo tax ñu jox la oto jox la gàdd corps jox la kër gu rafet pour ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaam nga xam ne belle vie lañ lay dundaloo waaye belle vie am na lu ko lu ko gën. Mm-hmm. xam nga lu ma nga am sa yëfu bopp sa këru bopp am sa xaalisu bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa bopp. Mm-hmm. te mën nañ ko du dëgg. Mm-hmm. Ah, loolay dëgg. léegi nu ñuy def dem ci paa boobu ça m'intéresse quand même de partir pour savoir plus. ah au cas ma war a jël décision. d'accord léegi man danaa xool oote su ma ootee. Ah, mhm. xool ko ban jour la ñuy mën a recevoir ñu def. ci gannaaw Saalum la dégg nga. ok. incha allah. parce que faut que ma dem quand même. Ah. waaw xaw ma li tuuti ci décision ma war a jël parce que il faut que ma jàmbaarloog ñoom franchement. Ah, parce que. parce que ils n'ont pas intérêt ma wax ils n'ont pas intérêt ma wax. wu leen seen góor dafay daanu. bu baax. ils n'ont pas intérêt ma wax. donc comme c'est ça on va jouer maintenant carte sur table. mais moo tax ma bëgg yow nga ñëw nga toog xam naa ne li ñuy wax nii yëpp ay fen la yaa ngi mais ñoom mhm. bëgguñ nga wax moo tax ñu garder la te suñ xamee ne dangaa nar wax yaa ngi dégg mm. nuñ lay def mhm. dañ lay bëgg a liquider dañ lay bëgg a parce que ñoom xam nañ ne fu nekk ni yow bis boo waxee mhm. tas àddina yaa ngi dégg te damay toog waaw man parce que sa papa dafa ne benn kilifa lañ am gis nga ba muy def conférence dafa ne benn kilifa lañu am ñu ngi koy déglu man mii lay wax. ma téléphone loo xamante ne ko loolu def loolu na ma. léegi nag ñoom Maître El ak ñooñu du mhm. leen aaraay parce que Maître El Hadj Diouf affaire mu ngi ciy baax. ba ñoom ñëpp ñoom ñëpp ku si takk képp ku si takk sa affaire mu baax baax sincèrement. xam na ne moom Maître El xam na ne lim nekk yëpp ay fen la mu ne xaaral léegi may may jéem a encaissé di lekk léegi ñu ngi koy jox ñu ngi koy jox xaalis. moo tax mu ne léegi nag nday mbilli gi nga xam ne nag coow li yëpp moom la toog lu tax moom duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko jox alo ma xam nga xam nga yàlla moom tey su doon wàccee mbugalam fekkee tey tey tey tey la ñuy dem àllaaxira man damay bokk de ah ndax man nekk na complice ak yow toog xam ta noppi xam nga boobaa moom ndax fu nekk nii moom mbugal yàlla moom kenn xamut du jeex. loolu mais mais euh, aji suñu waxee loolu complice mooy lu nit dajaloo te booloo pexe mm-hmm. ko mm. loolu complice la loolu mooy déggoo loolu la ñuy wax. loolu araam na wala araamul man muy doomu sëriñ te jàng kay xam naa ci dara yow da ngaa yaakaar ne àddina fii la yem ñun ñii ñëpp yowmal am kenn xamut suñu yàlla jéggalu dëgg mbugal gudul jeex la xolo imaginer rek bët bu set nga jël sa loxo teg ko ci gaz ci gaz mu lay lakk te gaz boobu doo ci mu musa teggi sa loxo da ko ci teg te safara si yi ngay gis ci àddina bi xam nga ñaata lañ ko sëppee ci safara su ci àllaaxira Mm-hmm. sëpp nañ ko ci juróom-ñaar téeméer yoon juróom-ñaar téeméer mooy mooy set mm-hmm. mm-hmm. déedéet bul tiit arko baax na nag léegi-léegi nga jàng ñu jàngal la ci mbiru yàlla parce que xam nga nit doomu aadama day nekk ci àddina te du jàng du jàng yàlla su jàngee yàlla nag ñu koy wax ci yàlla dana am lu bëri loo xam ne dina ci bàyyi xelam mais nag yàlla borom yërmande la అంతా గరి eh. ah loolu mooy problème bi yow mii nday mbili nga xam ne yow yaa yow yaa waral coow lu yëpp ñu xam ne coow lu yëpp yow la te lépp c'est faux lu tax yow duñ la jox ay milliards Mm. Ah, dañ la ko war a jox aji. déjà tey dinaa leen tiital parce que je je retourne vers euh, François Hélène Gueye. pour mm-hmm. lui dire que euh, suba incha allah dañu def live. waaw léegi nag man des waaw mais man dinaa lay xelal ni ngay def pour toog da ngay toog ne leen damaa bëgg kër nañ la tabaxal nañ la jox clé à main yaa ngi dégg. Mm-hmm. soxlawu sax clé à main nañ la defaral terrain. ñu jox la xaalis bi ndax mun nañ la jox terrain bindal la ay këyit ak yëpp fekk ne ñoom en domaine duñ ko duñ ko sottil ci yow comprendre nga lu ma la wax dafay nekk mu nekk foofu xam naa leen la ñoom ñëpp te ñëpp laa xam ku nekk teg naa ak ñu ak mhm. ñëpp laa xam et pas intérêt ma wax loolu moom xam naa xam naa ko voilà ils n'ont pas intérêt ñoom ñëpp tey mu xoolal attends na foto benn benn list ci ñi nga xamante ne jot naa leen gis. mu ngi noonu. su ma su ma su ma la ko waxee sa je vois pas mon croire. ñii di ay doomaram moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne benn une petite lañ nekkal boo xamante ne xamul dara dof la et tout xamuñu te lépp lu ñuy def xam naa ko dama leen bàyyi ci biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag te xam ne ñoom ay fen la. léegi nag par force nag mu neex mu naqari dafa jot ci taabal nga ne leen yaa ngi may dégg terrain bi soxlawuma ko dama bëgg ngeen jox ma ma tabax pour sama famille attends attends moi je moi euh, ces ces ces ces gens là xaw ma ay nitu lan